muy côté nangaan bi côté abattoir Fass maa ngi jàpp ne ci ndimbal yi ñu doon joxe dafa xawoon a néew lool li fi duggoon ci ndimbal yi nga xam ne moo jógee woon ci président Macky Sall loolu nag li ko indi mooy Kaolack ñëpp dañoo jàpp ne ñëpp bokk kon ku ci benn wala ñaar manqué sax suñ mënee mottali ñu jéem ko buñ ko mën mënut a mottali itam ñu jéem a fexe masla ak ñoom bañ sentir seen bopp ne ci mbir mi lañ bokk moo tax ñu fexe ñooñu jëm cee recensé li nga xam ne jot nañ ñoo teew tey ñu recensé leen pour ñoom tam ñu jot ay aide ci aide yooyu nga xam ne président Macky Sall commencé woon na ko ci biir réew mi moo waral ñu doxalee ko tey di sant bu baax nag président Macky Sall ci taxawaayam ci ndimbalam démb rek mi ngi yónnee lenn ci jàpp xam ne mbir mi mbiram ñëpp la ca yombut ca dafa diis mu dugal loxoom bu baax pour yombal mboolem li nga xam ne ñu ngi koy dugal ci biir population bi. wax naa léegi ci turo sax na Marème Faye Sall ne amul benn at boo xam ne bu tam xarit jotee du jël man-manam ak kattanam ak xolam ak xelam yëpp yónnee ko Saalum mu defati ko nam ko daan defee barki démb yónnee na fi loo xam ne ci fexe population bi xam naa ñëpp am nag yombut. waaye yónnee na fi ci loo loo xam ne fa tabaarakallaahu loolu mënut a weesu yëg mënut a weesu respect mënut a weesu am sentiment ci population ci région de Kaolack loolu li muy rek mooy toujours li may wax ne Kaolack Macky la région de Kaolack Macky la. ci guddi gi sama xarit yi may faral di waxtaanandoo biñ ma rendre compte discours ak taxawaay bi président taxaw démb ci France da ngay fier pour nekk sénégalais da ngay fier pour nekk ci suufam da ngay fier. pour ànd ak moom xam ne lim nekk tey ak lim nekk ëllëg loolu moo ñuy dimbale ñun Sénégal ñun saxla wuñu kenn koo xam ne dafay ñëw du ñu noot liñ soxla mooy kuy ànd ak ñun nekk ñun ci yu ñu toll di ànd ak ñun ci niveau yooyu te loolu moo dal président Macky Sall ñu ngi koy ndokkeel ci mission bu rëy bi mu defi noo France ak ndam lu rey la mu fa jëlee yu bari ci yu nit ñi mën a wax ak yu nit ñi mënut a wax yoo xam ne moom moo ko dox loolu ñun ñëpp xam nañ ko kon ñu ngi koy ndokkeel ci visite bi di ko ñaanal jàll retouru jàmm mu ñëwaat ci biir réew mi te xam nañ ne génnam yiw la dellu seem xéewal la yàlla na ko yàlla indi ci jàmm